Mariama di calculer njëg gi mu war a jëndee ay fourniture ci kanam ku koy jaay. dafa ñëwoon ngir jëndal ay livre ñetti doom yi nga xamante ni dañuy waaj a tàmbali école mu ne dafay indi livre yu mu jëndoon daaw ndaxte léegi lépp cher. c'est pas facile tam nga koy jox jëlaat yeneen teg sama xaalis tegaat xaalis. li yëpp nag mu ngi toll ci vingt cinq mille kenn yokk ko. nit ki su ñëwee di jënd si bu jàpp ne am na xaalis wala bul jàpp ne sama client la. wante léeg-léeg njëg gi am ci marché bi. dañ koy yëg ba ci biir kër yi. boo daan joxe dépasse cinq léegi da ngay joxe dix mille sax ñu la doyul te boo demee ci marché bi liñ la wax dëgg la. ci fu sorewul lool Dame sàmb moom mu ngi ci njaay mi. di waajal ubbi teg école gi. il y a les crayons les bics il y a les ardoises les cahiers tout à bon prix aussi parce que ici c'est par terre nous nous à bon prix. moom tamit dafay def li nga xamante ni moo di weccalante. loolu moom moo si gën a bari léegi bu njëkk sa parents yu bari naan nañu ko woon mais léegi euh, parent yu bari xam nañ loolu daal. feneen ñuy wane ay sàkk kay kaye di xoolaat njëg yi ndaxte jumtukaay yi ñu jëfandikoo école lépp a yokk. da ngay sentir ne lu mel ni matériel géométrique lu mel ni ardoise yi effaçable yooyu nga xamante nañ koy soxla en classe <coughs> yooyu waaw dafay dafay dafay xaw a jafe. léegi da ngay jënd ñaan lay deux mille cinq cent su mënoo koo jaayee trois mënoo koo jaayee trois mille mën ngaa jëndee deux mille deux cent cinquante deux cent nga ciy am. même crayon yi sax dafa yokk mën nañu teg lépp wane ni école mu ngi waaj a tijji ak tijji gu metti daanaka ci ñëpp. fourniture ak yooyu bon au départ ça peut me coûter jusqu'à cinquante soixante mille francs ouais. ça c'est très metti mel ni xaar bu yàgg te xamuloo foo jëm.